tuuba dëkk la boo xam ne dafa yàgg am jafe-jafe ci wàllum assainissement rawatina jamono bi nga xam ne ñu ngi waajal màggal Touba te nekk ci nawet bi mbedd yu bari taa loole tax Touba ca kanam jóg lancé benn opération jaayante woo si mbooleem jullit yeeg taalibe yi ñu wuy si leen wuy gu am solo jëf ci jëf joo xam ne kawe na seen njortu ñu dajale ay koppar ak i jumtukaay ngir fas yéene lancé li nga xam ne moo jëm ci assainissement bu Touba ngir màggal gi jafe-jafe bañ am ci fànn googu. liggéey bi biñ ko wootee dañoo seet ne mbedd nawet bi màggal gi mooy ndaje mi ëpp solo ci Afrique de l'Ouest ci adduna bi sax bu la neexee gannaaw Arabie Saoudite Makka te màggal gi bu ñëwee xat-xat lay doon ak jafe-jafe daaw ñu tàmbali ko. def ci liggéey yu ama am solo biñ ko defee ren ji nag ñu ne nañ ci teel a tàmbalee jublu ànd ak borom xam-xam yi ñu wàcc dem ci dëkk bi xool saytu jàngat daal di xayma ne ci xayma bu ñu amee 350 millions xayma jëm koon natte ci tolluwaay bi ñu amoon waaye nag mu mel na dañ cee sóoraale woon ne dañu am jaayante ñu ne kon nañ ca tàmbalee bi ñu wootee jaayante bi ci ndigalu sëriñ bi gis nañ ne liñ ci doon wut faw xanaa romb na loolu nag day joxe tegtal ci ne liggéey buñ tàmbali la waaye du yamati ci nañ ko xalaatee woon ndax bu yokkoo dañuy yokk. liggéey bi nag commune bu Touba jàpp na ci bu baax a baax nda yëkkati na lu toll ci fanweeri million jébbal ko Touba ci kanam ak juróomi junni litre essence ak personnel boo xam ne teg na ko ci seen loxo ngir mu jàppale leen ci liggéey bi. ma ñu firndeel ko ñu daje waxtaan ci ñu tënk li ñuy tënk nan lañ ci jubloo ñoom ñu dem réfléchir ba trouver solution bii nga xam ne ñoom ci seen xereñ ci seen njàmbaar. ci seen ak ko ci yëg-yëgu sëñ Tuubaa nga xam ne li ni ñu ko tuddee Touba ci kanam taalibe sëñ Tuubaa yëpp ngi ci ñu laase ko murid yi répondre ci nii taalibe sëñ Tuubaa yi répondre ci nii li ñu ci teñ ànd ko ñun la ma leen waxoon ci tàmbali ba rek maa ngi yéen Touba ca kanam moom liggéeyal sëñ Tuubaa la te kenn du ma ci man fu ñu toll ku fasi ma yéene ku yàlla bind man ma ci liggéeyal sëñ Tuubaa loolu moom maa ngi ñaan suñu borom nekk ca jàmbaar yi ci kanam objectifu Touba ca kanam mooy mu taxaw ci mbedd yi nga xam ne daan taa ci dëkk bi tam yaatu lool ñu sëkk ko defar ko jëlee ndox yi daan taa ci yenn bërëb yi tali yi nga xam ne dafa yàqu woon ñu defar fa ay radier ñun dañuy defar loo xam ni dañuy wéy di fi nekk kenn dootu ko fi jële bu bu ko yàlla dogalee loolu lañ bëgg a def mhm. loolu tax na euh, ànd naag liggéey bu yaatu ndax nawet baa ngi ñëw day taw fi ñuy war defar mooy fi nga xam ne ndox mi daf fiy maire ak collaboration ak euh, ñi nga xam ne ñoom la ko seqal muy autorités yi ak waa état bi ci euh, direction bi nga xam ne ñooy wàllu inondation yi ñu jël programme ak sapeur pompier ci fépp foo xam ne ni ndox mi dafa taa euh, su boobaa ñoom danañ ñëw daal di koy vider mairie dana fa wàcce courant sapeur pompier indi ay pompe ñu jëlee fa ndox ma ngir ñun ñu mën a liggéey di wax ne études yi def nañ ko ba pare dëkk bi rëy na liñ ci war a def bari na ci assainissement dañoo jukki li nga xam ne moo ci gën a jàmp ginnaaw bu ñu wëree ba xool ne lii moo gën a urgence rawatina libéré yoon yi te loolu tàmbulee ci fii ci estation Shell bi ak fële ci buntu maire yi ba te maire wax ne jërut ñu koy laal ndax pare nañ pour defar ko ak fu mel ni euh, tokkooru sëñ Cheikh ba ak yu ni mel ba mu mat vingt sites yi ñu ne moo gën a ñor ñu fas ko yéenee tàmbulee am na ay tali yoo xam ne yoon wi daf koy nangu yamul ci ay tali waaye am na ay mbedd 30 yu mag yoo xam ne amul tali waaye na muy méttee ëpp na loolu saafara yi nga xamante bi ne ni moom lañ ci euh, tënk fii ñu toll nii mooy li ñuy wax ay solution d'urgence durable yoo xamante bi ne ni day doon solution yoo xamante bi ne ni fii ak màggal gi liñ fiy def bu leneen dikkatee ëllëg day doon loo xam ne daf ciy toftalu ci loolu ci lañu xool fi nga xam ne day tàndox ñu xool ci li ko wër loolu ñuy wax exutoire fa nga xamante bi ne ni fa la assainissement ba yem ñu xool ko am na ci barab yoo xamante bi ne ni fi mu toll ak ñi ŋànk assainissement bi waxtaan nañ ceeg ñoom ba ñu d'accord ci ñu jëlee ndox mi foofu yóbbu ko foofu daal di ko ci raccorder mu dem ci réseau bi ndax loolu it li tax ñu waxtaan ceeg ñoom mooy mën ngaa jële foofu ndox dugal ko ci réseau bi fekk boobu ñoom jumtuwaay yee ñu nga xam ne moom la ñu waajal attanul li nga xamante ne nii moom lañ cay def kon bu boobee ak loraange lay lay lay jur feneen waaye du jur saafara loolu yàlla sunu borom def na ci tawféex ba nga xamante bi ne nii ñu ci waxtaan ak ñoom gis nañ ni loola mën na loo xamante bi ne ni nekk la yeneen beneen bi ci des mooy dafa am mbedd 30 yoo xamante bi ne it ni ko suñ bu waxee day am ndox su amee ndox dañuy wax ni dañuy def lenn def fa li ñuy wax préparation plateforme yi buñ ko defee ba noppi def fa ay couche de fondation fa ay couche euh, de de ak ak ak de forme loolu suñ ko defee suñ defee loolu yëpp ba waajal ko ba noppi dana tax yoon yooyu ñu mën koo jëfandikoo. Touba dëkk bi ni muy màggee dafa jéggi dayoo loole tax na ba assainissement bi àggul ci gox yu bëree bëri lii la nag tax na ba Touba ca kanam xalaat ci ngir fas yéene taxawal kuréel goo xam ne dañuy xalaat saa su ne ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum assainissement ci dëkk bi ngir di ci ut saafara. li ci ëpp ci plan yi nga xam ne def nañ ko ak ci niseer yi nga xam ne am na ci wàllu yi nga xam ne mooy assainissement dafa mel ni fi mu fi mu yegg ci dëkk bi bariwul ak dayawaayu dëkk bi. léegi li ñu bëggoon ci loolu mooy suñu ko jotee moom la sëñ bi doon junj sànq dafa am kuréel goo xamante bi ne ni dañu koy ubbi bu ne mu nekk loo xamante ni à long terme la ñë képp koo xamante bi ne ni sax xam-xam dafa màcc ci wàllu assainissement Touba ci kanam dafa fa yéene dugal la foofa am na ci ñu bari ñu ci jot a am fi tool am na ci ñoo xamante bi ne sax jotoon nañ cee xalaat ba bind ci loola buñ ko defee te it loolu dañu ciy wax ni ñi ne moo ñi nekk ci biir réew mi la moo xam fu ñu mën a nekk ci àdduna ndax léegi xarala yi euh, def na ki ni mën nañu nit mën naa nekk fu ne di liggéey ak ku ne. mboolem kilifa yi nga xam ne teewoon nañ jotaay bi nga xam ne moom la Touba ca kanam doon amal ngir lancer travaux assainissement bu Touba ñoom ñëpp rafetlu nañ jëfu Touba ca kanam Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Abdou Lahad di ñaax yenn service yi ngir ñu ñëw participer bu baax a baax ci Touba ca kanam ndax li ñuy gañe ci dëkk bi bëri na lool. bëgg lu baax nga jàpp ne li ñu def te xam ne ku ko def sànn wi dem dellu si rek la ci yow la dellu si waat li ci nag ba ci day li mel ni orange ak wari ak yi niroog ñoom ñoom amee nañ Touba ca kanam duggal tey dañoo war a jëf leen ci waaj kanam ndax ñu ciy dugal seen addiya dañuy fay te ñoom ñooy bénéfice jaar gi mi jaar ci ñoom tey dañ ciy am tiyaaba dañ ciy am tiyaaba am ci yóbbu. addiya ki ki ko joxe ñoo yem képp. sëñ Saliou ma ko waxoon moo teewaloon Serigne Mountakha Mbacke Bachir ci jotaay bile moom it santaat bu baax taxawaayu tuuba ca kanam ak taalibe yi nga xam ne ñu ngi ciy jëf. rawatina ñi nga xam ne ba Touba ca kanam doore ba léegi weeru yàlla sàkk ñu ngi ciy versé seeni mille francs. ak dërëm ak ki jox nga jaaxal ci procédure bi lañ am. mooyam ci moom Serigne Saliou Mbacke daal di wax ne addiya moo ko doon mën a xeebu ko ci dara procédure bi koo ko joxee ca lañ kon ña tàmbaloon di joxe ñetti mil ba liggéey bi ak si biir. kon la seen xetal bu baax a baax te ngeen góorgóorlu ci bu baax a baax nag te xam ne naa ne Serigne Touba ñàkk na ko ndax li tax mu yàlla musal leen kon nag yàlla na ci gën a te suñ Tuubaa dimbale leen gasandu leen ba fa ngeen bëgg jëm ci liggéey suñ Tuubaa bi ci dëkk bii nga xam ne Sëriñ Tuubaa dëkk bi rek ko ñoroon ba mu mas a nekk ci géej gi di ngeen Cheikh Abdoulaye wax na ko ci waxtaanu 88 bi la mu wax mooy diggam ak yàlla diggam ak Rasulullah diggam ak Alxuraan ba ko ñeenteel mooy dëkk bi mosuñu gis leneen lu ko ñor pour dëkk bi kon nag. képp koo xam ne jur nga ngir ci xam ne Sëñ Tuubaa dana la jëgatu ko Sëñ waaye lu ko waaye jëfee itam fay nga ko gis. Touba ca kanam door na liggéey assainissement bu Touba bi ginnaaw boo xam ne mboolem jumtukaay yi ñu doon xaar agsi na ci bërëb bi. liggéey bi nag fa fas yéene wéy seenu bëgg-bëgg moo di bala ñuy àgg màggal Tuuba mboole mbedd yi nga xam ne dañoo nekk ci dëkk bi waaye liggéey bi du yem rek ci màggal gi ndax seenu objectif moom moo di trouver solution ci assainissement bu Tuuba